arrêté fi arrière waaw. dañu ne woon. c'est du ñu tooñ du ñu attaqué kenn. ñëpp gis nañu li xew tey. te ñi nga ñoom ñoo attaqué le convoi du ñu ay militants. c'est des voyous yu ñu recruté. yor jaas et ce que je dis je le dis devant le ministre de l'intérieur mu xam ko jaas yi ay jaas yi lañ yor. nangu les biens et matériels yi nga xam ne ñoom lañu ñu am na loo xam ne nag suñu responsabilité la bu ñu duggee ci biir loolu dinañ ko régler mais li ci des dama leen di wax lenn rek mooy seen stratégie gis nañu caravane bi ni mu amee doole ñu bëgg a décourager nit ñi pour que suba bu ñuy caravanaat nit ñi bañ a ñëw c'est ça leur stratégie est-ce que dégg ngeen wax seen stratégie mooy seen stratégie mooy suba ñuy defaat suñu caravane nit ñi ragal bañ a ñëw il se trompe lourdement li ci des nag yéen yéen yéen laay waxal li ci des li ci suba suba déglu leen ma suba suba du ñu ñu egg suba mais allah bis bu ñuy génn je le dis devant la sécurité des biens et des personnes comme dafa am ñoo xam ne dañoo yaakaar ni ñoom ñoo ñu gën a wóyu li ma wax je l'assume man Abass Fall maa ko wax bu subaa bu yeboo ñoom ñu préparé wu ils nous ont déclaré la guerre ils nous comme nag dañu déclaré guerre ne leen wóor ne tey ci guddi ba suba ñoom bu ñu nelaw man nag man nag man nag man nag du ma xeex déglu leen ma déglu leen ma rek s'il vous ñun du ñu xeex xeexu tàppet dañ lay wax ne danañ la song si bu yeboo nag fu ñu xam wëyu nañ ko jëli fayu je le dis yéen ñëpp fayu par force lay am suba déglu leen ma laa wax déglu leen may wax dama koy assumer dama koy assumer devant je le dis encore may ma rek xam nga xam nga waxtaan balaa neex ngeen déglu dama ni dinañu jël suñuy disposition parce que tey parce que nañu toutes nos dispositions non waxuma fayu comme si da daw au gis naa li leen def doon ngeen leen ba ñu daw mais loolu doyul man suba kuy ñëw

puisque notre caravane ñun ñoo ngi koy sécuriser suñu bopp nous sommes en campagne électorale hein il y a une immunité totale c'est pourquoi ils font ce qu'ils font parce que campagne électorale taxi yi moo ni boo ci rayee nit boo ci gaañee nit sax c'est couvert par une immunité loolu la ñu xam moo tax ñuy def li ñuy def on va pas se laisser attaquer qui s'y frotte s'y pique demain on va se préparer en conséquence on va se préparer en conséquence et ce que nous devons faire le ferons léegi nag ñibbi leen dans le calme et la sérénité ñeneen ñi nga xam ne may leen ma am na ñoo xam ne may ma may ma may ma may ma je ne peux pas être d'accord ñu naan ma faut pas dire ça je vais dire ça parce que dama nekk ak ay jigéen ñu agressé leen violenté leen gaañ leen ngeen na ma naan noppi du ma noppi je vais parler ma ni ñi nga xam ne dañu nangu seen bagage nangu seen téléphone yàq seen oto sàcc seen xaalis nañu gis Mouhamed Ndiaye ñoom ñëpp nañ gis Mouhamed Ndiaye dina leen recenser yéen ñëpp et on va faire le nécessaire pour que li ngeen ñàkkoon xam naa ne mënu leen delloo lépp je veux dire moralement parlant mais li ngeen ñàkk ñu delloo leen ko totalement mais demain préparez-vous ça je le dis et je le répète devant le ministre de l'Intérieur suba dinañu fayu incha allah